Sidya Ndiaye ñu ngi lay nuyu. en yaay vice président bu alliance And Gueusseum. ci Sidya Ndiaye ni ki démb ngeen daal di amal ab euh, génn boo xamante ne nit ñi xaaruñu ko woon. ndax dafa am ab trêve boo xam ne euh, syndicat yi ñu ngi ci nekkoon ak gouvernement bi ndax. Euh, jamono mm-hmm. mbas mi nga xamante ne moom la ñuy dund. lan moo tax ngeen daal di dakkal buumu jàmm jooju doon dox seen diggante autorité yi. moom ba léegi jàmm ngi dox sax parce que ñun li def mooy dañu dañu. yëglu rek xam ne ñun mënuñu nekk ci confinement mënuñu nekk ci terrain bi di faj maladie état bi di jël ay mesures ñu nga xamante ne nekk ci terrain bi nekk en première ligne bu ñu fekkente ne ñoom état mooy continuer ci li muy def joxe na fii ñaari yoon ay prime médecin yi ak catégorie boobu rek mu bañ ko jox agent paramédicaux yi te ñoo ëpp ci terrain donc loolu moo moom mooy côté moo tax ñu ñu yëngu balaa affaire bi di ëpp loxo na état bi maanaam njiitu réew ci boppam décret bi nga xam ne moom la a génne ci euh, âge de la retraite bi fonction publique na président Mbacke Diakhar. pour mu dajaat yeneen kuréel ñu yore yee seen yeneen syndicat pour que ñu créé benn front boo xamante ne moom mooy saytu mbir mi en tout cas opposé wu ne moom la nguur bi maanaam jox ñi soixante cinq ans ba ñu jox corps médical mm. donc loolu ñëpp la concerné moo tax ñu lancé appel boobu gi bu fekkee ne jàmm nar lañ ko perturbé moo responsable situation boobu parce que moom moo lancé waaw moom moo moom bi euh, ñu yomb loolu moo tax ñu ne ne ko te ko arrêté bu ko arrêté wul nag day indi effort. tey jii est-ce que jàpp ngeen ni nguur gi dafa mel ni luy profité ci situation bi ngir jël ay décision ya ka neex. mais loolu lay niru. Hmm. mais ñun dafay profité ci situation économique bi bëgg a jëlale ay mesures yoo xam ne ñun dañu ko seetaan donc ñoom moom nguur gi bu dee perturbation nan naam paix sociale bi nan la perturbé moom na xool côté am ak doxalinam su ko defee jàmm ne ñooy li ñu mën a liggéey mais bu ko deful nag. ah danañ obligé malgré crise wala pas crise pandémie danañ obligé yëglu danañ obligé wàccu mbedd pour peut-être ñu arrêté injustice bi nga xamante ne moom nañu nar a imposer travailleurs lan nga jàpp ni tey moom moo tax euh, ñu bëgg a beddi agent paramédicaux yi ci ci yu mel nii dara mënu ko justifier dara dafa mel ni mafia moo am ah, ñoo xam ne ñoom la corps médical bi la ñuy beral loxo tey ministère bi ministère de la santé et d'action sociale du ministère la Mm. loolu bu leeree seen bopp nga xam ne ñëpp lañ war a boot njaboot ñëpp lañ war a yemale wala def farfalo wala set ak xëy mm. donc voilà le problème ñun loolu moo tax ñu ne leen mm. na vraiment ñu arrêté li ñuy def ñun suñu syndicat yi am nañu ay médecin am nañu ay ñu doxal mooy dañu bëgg a féewale corps boobu médical yi ak corps médical ñii ñu beral loxo ñu sànni ñun duñ ko nangu parce que ñun ñoo leen ëpp ci terrain nga tey tey bu ñu arrêté woon ñun corps paramédical bu ñu arrêté woon liggéey bi rek ngeen xam ne dëgg euh, ngeen xam ne lan mooy dëgg waaw ñu gis bu baax mais métier mënuñu dara mënuñu defal seen bopp dara waaw suñu suñu bopp dañuy dañuy liggéey ak ñoom ah, ñoom ñooy faj mais ñoom kenn mënuñu dem sans personnel soignant bi lan leer mm. loolu bu koy taaxamulee naa wéy di koy tax dafa échoué mission ah, régal ngeen di nga xam ne moom lañ ko jox muy mission de service public de Euh, tey jii wax ngeen ni tamit euh, démb ci li nga xam ne tamit moom mooy contractuel yu ministère de la santé yéen ñi da wax que ni ñoom gannaaw ay contrat durée déterminée yu bari yoo xam ne ak i année de contractualisation yoo xam ne kenn euh, ko ci seen plan de carrière bu ñu leen recruter dañuy am ay jafe-jafe bu ñu demee retraite. am na am am Sénégal am na législation buy permettre. bu la neexee nga jël journalier hmm. bu la neexee euh, travail saisonnier nga jël saisonnier la nga jël contractuel mais dafa am lu fu mu maanaam yoon dafa ne boo signé contrat ñaari yoon ak même employé bi da nga ko war a régulariser parce que ça veut dire ne emploi bi c'est un emploi permanent. Hmm. kenn war a jël contractuel di ko liggéeyloo pour emploi permanent. te dafa am situation juridique parce que aussi la borom kër la bëgg naa am avenir mais nga jël di ko liggéeyloo zéro ci doo ko versé cotisation presse doo ko versé sécurité sociale doo ko defal daal loolu loolu muy niro te état warul def loolu parce que état moom mooy garantie li nga xam ne mooy droit de au Sénégal mais bu dee état ci boppam mooy def loolu naka la privé moo tax di jël dara tey boo demee entreprise yu bëri loolu moo fi nekk dañu liggéey loo xale duñu dara ba pare mu am ay société intérim ñoo xamante ne ñooy dem négocier contrat ñu ñëw jël la bu ñu facturé force bi deux cent mille yoon ñu sànni la cinquante mille wala soixante mille ñu ne lii la mais suñ papa continuer réew kenn ko nañ ñu def euh, ah, ah, ci wàllu koom jàpp nga ni li ngeen bëgg noonu mun nañ ko def ñoom ci saa si tembe ndax ñoom boo waxee ñu ne fu mu toll nii réew mi dafa ne ci jafe-jafe ndax feebar bi. waaw jafe-jafe bi ah loolu dañ koy yàgg di régler te mais li am solo mooy état bu nekk. nguur gu ne daa war a xool lan mooy avantage intérêt citoyen parce que nag la fi toogal du ñun mm. du citoyen yi donc dafa war a def loo xamante ne suñu intérêt bi ah la war a défendre mais waru défendre intérêt ay patronat wala ñeneen kese bay ñi nga xam ne mooy askan loolu mooy problème bi mais tant que loolu bay ñu ko xel rek li ñu dee jaar jafe-jafe loolu moo tax yoo xam ne du jeex ci secteur boo xam ne secteur sensible comme comme santé ñëpp gis jur tey am na ay médecins yoo xam ne ñu ngi ci contractuel ay cent mille cent mille dañ leen di fay alors que seen morom fonction bi ñu am un million de salaire mais loolu fan nañ ko teg mm. loolu mooy l'exploitation de l'homme par l'homme rek maanaam ne c'est pas sérieux donc je crois que yooyu question yi mën nañ ko réglé mënuñ jël simplement di justifier économie mondiale wala dañu may jafe-jafe jafe-jafe moom dina continuer di am parce que adduna euh, mooy doxee noonu mm. mais aussi dañu war a góorgóorlu mm. ah réew mu nekk góorgóorlu am législation boo xamante ne ñëpp a koy respecté su ko defee mais nit ñi mën a euh, euh, construire seen avenir mm-hmm. ah mais xale yi génn bi école am formation am jël ay stage yu dul jeex jël ay contrat doo xam boo koy jëlee nga nekk di nangu parce que da naan su ma bañee li ma bañ sama morom téeméer ñu ngi ci bi di ma xaar loolu mooy jax affaire yi donc je crois que vraiment ñu ngi ci question yi état bi gën a am rigueur gën a xam application texte mm-hmm. moom mooy bi gar garant mu mu éviter à ce que contrat yi à la presse li koy signé sans véritablement koom-koom sax moom moo tax ba ci wàllu mbas mi ñu daal di euh, daanaka euh, yolomal lépp loo xam ne ay matuwaay la yuñ jëloon ci wàllu feebar bi ba tey jii de euh, cas yi di gën a yokku bés bu ne tey jii ñuy wax daanaka ñu ngi toll ci li nga xam ne moom mooy juróom fukk ak ñetti nit yoo xam ne génn nañu àdduna mu nekk du doy waar tey jii yaakaar nga ne dañ wax a peut delluwaat ci mesure yi ngeen jëloon. waaw daal naa ne xam naa ne peut être que état bi mu nekk nii mënul dellu ginnaaw parce que pression bi aussi dafa ëpp te du état Sénégal rek ñu bëri gis ngeen réew yu bëri dañu naan dañuy défier mesure yi ngay gaaj teg parce que économie bi euh, ñu bëri nekkuñu agent de l' état ñu bëri si informel moo lañ yore wala secteur privé te ñooñu bu ñu liggéeyee comme comme du am ba ñuy fay ay salaire donc loolu aussi mais mën nañ ko ci ñun depuis ci njëlbeen bi lañ ñëw dañu waroon confiner Ndakaaru ak Touba dañoo nekkoon existence euh, pandémie malheureusement defuñu ko ba léegi déconfiné nañu affaire baa ngi law mais jot na aussi population yi seen bopp beneen soobu ci xeex xam ni lu état bi pour ñoom la état bi defu ko pour empêcher leen de fonctionner wala pour empêcher de vivre mais ñoom seen bopp ñoo war a seen bopp pour que véritablement ñu réinterrompre chaîne intertransmission communautaire bi pour que jamono ñooy nit ñi mën a xëy liggéey normal mais pour le moment dafa mel ni Sénégalais aussi dañuy dëgër bopp parce que dinañ fi ñuy attaqué à Milan daa ñëw pour suul ay ne dañ ko suul indiscipline boo xam ne kenn mënu ko expliquer mais tant que loolu mu mais du sotti non ñu xam ne autorités yi dañ leen war a respect consigne yi ñu joxe consigne boobu pour intérêt ñëpp la waaw yow mënoo jóg rek ne sama communauté bi sama extra extra lu loolu neex mm. ah, te feebar baa ngi nii ci à deful donc je crois vraiment question boobu c'est une question nationale boo xamante ne ñëpp ci war a jàpp jàppale autorité yi ah mm-hmm. mais bu ñu jëlee ay couvre-feu bu ñu jëlee ay couvre-feu di sànni loolu yëpp vraiment du yoon loolu dañu xam ne état dafa may régler muy fonctionné ñëpp moo ci war a ànd parce que lu ñuy jël ay mesures générales la ay impersonnel ciblé wuñu kenn dañu ne dañu war a continuer wu dañu war a interruption de transition mais bu ñu ko defee on n'aura pas de problème mais finalement bu fekkente ne anarchie mooy ku nekk dem la nag mais après bi day catastrophe lay def. Mm. ba te bu boobaa kenn du ci mais moo tax askan wi daal di bàyyeeku ñoom bu baax. ah mais c'est ça dañuy bàyyeeku parce que ñoom comprendre ñu ne déconfinement bi ñoom bàyyeeku lañ ko teg ah maanaam masque yi ñu waxoon sax dañ nañ ko takk gars yi nanguñu ko takk donc gestes barrières yi ñu ngi koy négligé te affaire bi demul fenn donc je crois que vraiment il faut que nit ñi en tout cas ñun ñu ngi rafetlu aussi liggéey journaliste yéen waa presse parce que chaque jour mm. yéen a ngi solo yéen a ngi yee nit dinañ waxaan nit ñi mm. vraiment nit ñi bu doon déglu nit ñi ñu déglu sax ñu bëri état bi war na ko bañ a def parce que vraiment média Sénégal lépp lu ñu war a def dem nañ ko ñu ngi rafetlu seen liggéey boobu nañ continuer amul découragé kenn ñu découragé nañ continuer sensibiliser nit ñu respecté barrière mm-hmm. tey ànd gësëm uh, boobu mooy laaj bu mujj bi daal di ngeen uh, mun nañ ne uh, xeex bi lan mooy étape bii di ñëw waaw comme ni ma la ko waxee ñu dañuy jéglu pour le moment Euh, fu ñu nekkoon foofu la ñu nekk c'est-à-dire que ajeen lañu nañu yu bëri parce que mën nañu def ñaari combat combat contre Covid bi nga ne moom la askan bi gën a yitteel ak beneen combat ne suñuy données personnelles mais dañu yëg ne état bi waru choisir moment boobu di provoquer nit ñi ko defee dañuy réagir te loolu c'est normal donc il faut que moom à son niveau mu xam ne moom war a geler mesures yi moo bëgg a jël dans la précipitation te amul mujj na ko geler ba nit ñi ba jëmi jamono ba nit ñi xam Covid bi fan la mi ñoo ñu mujj ak moom bu mu su ko defee ni ñu mën a reprendre nag c'est normal. Sidya Ndiaye maa ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. may fàttali ni yow yaay vice président bu alliance And Gueusseum jërëjëf ci wuyu bi nga wuyu tey ci sunu invitation ci matinale bu Rewmi FM. jërëjëf jërëjëf bonne continuation.